ahousubillahi mina sheytaan rajim bisimillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñuy seetaan te ñu déglu ñoo ngi leen di nuyu bu baax ku nekk ci turam ak santam ñu leen nuyu bu baax ci turu sëriñ Jili Mbàkke xalifa bu Seex Mustafaa Falilu ak ci turu sëriñ Seex Mbàkke moom sëriñ Moodu bu Sise mi nga xam ne moo jiite liggéey bi ñu nekk di sant mbooloom askanu waa Xaayra ñëpp ci liggéey yi nga xam ne jot na fay jaar te ñu ànd kook ñoom te fet lool macha allah mag ñi gone yi góor ñi jigéen ñi ñëpp rek ak ndaw ñi ngi leen di sant bu baax a baax ci jàppale gi ñu jàppale ci liggéey bi yombal gi ñu ko yombal lool ñu ngi leen di sant bu baax a baax. di dellusiwaat rek di leen euh, soññ ci recensement bi nga xam ne donte defoon nañ ko ay jamono ci gannaaw mu xaw a am tuuti gàllankoor ñu bëggoon ko tàmbaliwaat incha allah fii ñaari fan ñetti fan. ñu doon yëgal suñu mbokk yi nga xam ne ñoo dëkk xayra rek ci ne relais yi nga xam ne ñoom lañ envoyé ñuy ñëw ci ñoom. ñu war ko recensé ñu ngi leen di ñaan rek képp ku ñëw ci yow rek li nga xam ne mooy information yi nga xam ne ñoom lañu soxla nga jàpp na leen ko ndax lépp ci liggéey bi te it lépp lu ñu fi def rek ba mu jàggit yéen lañ ko defal kon ñu ngi leen di ñaan daal képp ku ñëw ci yow nga ubbil leen sa buntu yaatal leen lépp lu ñu soxla ci information yi nga xam ne mooy tax recensement bi jaar ci aw yoon nga yombal leen ko ñu ngi leen di sant yéen ñi dëkk xayri ñëpp di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa